xam ne yegg na ci 4 millions donc geste la wala mbir moo xam ne lu jar a rafetlu la boo xam ne jéego nguuru Sénégal def na ko mi ngi noonu kon euh, Fatou Ndiaye euh, dañuy wax ci euh, jëriñ bu ñu dénk wàllug paj meeg paju mi ministère de la santé mi daal di plainte docteur Babacar Niang bu suma assistance ngir diffamation docteur Babacar Niang wax na ne nag moom jot na ci boobuleeg plainte ab gendarme moo ko andil waaye nag la mu waxoon teggiwu ci lenn ñu teewlu kook Ndeye tegu ci yoon euh, comme sa <laughs> man ñàkk xam laa ko def euh, bu may dugg ci lu mel nii def naa bu ñu bëggoon dëkk bi dox nañ ma déglu ah, jéem a xool lan moo ci am ñu jóg ci. lii mu wax leer na yàgg nañu jaay yàgg nañu jaay matériel médical bi te loolu moo ñu tardeel tey bu ma ne la ay marocain dañ ñëw Sénégal ñu forme leen fii ñu dellu Maroc ñun ñu leen di yóbbul sunu malaat yi ñu jaaxal. ñuy fàttali sax ne docteur Niang moome mooy ganuk émission bile euh, di euh, seen show ci kanam lay euh, door ci bu 22h jotee ñu ba léegi kon xibaar yi wax ci plateforme avenir Sénégal bi nu bëgg bi nga xam ne àdduna ci kàddu yi docteur Niang boobe ci yenn ci ay révélation yi mu jot génne par rapport ak li mu woon li mu waxoon ne matériel médical yu ci bari wala sax lu ci ëpp dañu koy jaay loole nag ñoom li nu bëgg mooy ñu àndi ci ak leeral ba mu leer dàqu sax daal di déposer plainte ngir ñu ubbi ci ab information judiciaire dañu ci euh, teewlu euh, ki nga xam ne mooy njiit la di Cheikh Ahmed Tidiane enquête mënatul ñàkk centre yi nga xamoon ni teg nañu ko fii jënd matériel boo xam ne mooy dimbali nit ñi pour ñu nooyi ñu def ko ci du traité malade ñoom ñu dindi centre yooyu waaye tey ñu dégg ni yu ni matériel yooyu nekkoon ci centre yi am na ñu ko fa jëlee jaay ko ay structure privée te loolu gouvernement bi ko jëndoon te alalu sénégalais yi moo tax bi ñu ko déggee nag ñu jàpp ni di gën a jaadu mooy ñu def ci enquête bu gaaw a gaaw pour xam ñi jël matériel boobu ñan la ak ñan leen yebal ak ñan leen jàppale pour que ñu jébbal leen yoon yoon def ci liggéeyam moo tax ñu bëgg ministre bi def communication tey tekkaaral nekkee noppi naan damay liggéey du ma wax loolu mënatul nekk tey nañu wax sénégalais yi dëgg ne li lu ñaaw la loo xam ne faute politique la ak faute administrative maanaam faute sax nday demet mi ngi noonu jafe-jafe gi nga xam ne dox na ci di ministère de la santé ak docteur Babacar Niang euh, ci plainte bi dox seen diggante ndax ay information yu mu jot a génne lan nga ci mën a jàngate bon man su fekkonte ni ki njëkk wax ci mbirum matériel médical public bi ñuy jaay dans le marché noir muy Madiambal Diagne moo ko fi njëkk a génne mm-hmm. su loolu moom lañu jox euh, plainte teg ci docteur ñaa damay jàpp ni xel mën na ko nangu mais pour pourquoi ñu porter plainte Babacar Niang alors que waxuñu dara ci ma Madiambal mi nga xam ne tamit ñëpp gis nañu li mu wax ci CTE yi que matériel yi dañ koy jaay maintenant aujourd'hui ku jiitu il faut ñu xool yow sa doxin te ñoom actuellement nii dañu fi nekk pour askan wi donc dafay nekk dafay jaadu nit ñi di xool nan la ñuy yoree li nga xam te ne moom leen askan wi dénk même si ko docteur Niang waxulee sénégalais lambda bi nga xamante ne nii xelam sax dafa màcc ci wàllu wér-gu-yaram